waaye eh, damaa bëgg ngeen déglu lu baax limay wax dama ne ku waral li déedéet da ngeen nan Cheikh Diallo mo waral li ku waral li kan mo waral li ku waral li Cheikh Diallo mo waral Diallo moo waral lii a ila la la ilaha ku waral lii wayu Pape Demba waral lii merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf nee naa la borom baatin ak borom batineen bokkut kilifa dafa am ak kilifa fànni nee naa la tool bi xul xuloo la jàll bu màttee nga xam ne da ngeen bokkut ndax pare ngeen jotu ma xam ay photographe jotu ndax pare ngeen pour ñu nga parce ñu ngi moom borom baatin maa boobu bëgg fàtte ba du tey yaa ko taal yaa ko wane pour ñu sa laa faral waxal boo waxul kuy wax ay jëf Merci.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 ngërmaane gi kadalika di wax ne vraiment waa Saalum waa Kaolack waa senegaal ñu bëgg Sénégal lañ yàlla itam def na ci seen xol yi mbëggeel def na ci seen xol yi cofeel maa ngi leen di ndokkeel ci loolu di leen ndokkeel ci weer wu màgg wii nga xam mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu chance lépp luñ doon liggéey yàlla maye ñi ci ndam bon nag ndam la loo xam ne jot nañ ne dafay avancer rek du dellu gannaaw am na njort bu foofu bala maa avancer maa ngi nuyu sama najaay sama xalifa sama xarit sama ustaaz di ko wax ne maa ngi koy gërëm di ko nuyu di ko wax ne andi na changement boo xamante ne ci Médina ñi ngi ko doon sént bu yàgg mu tardé moy mooy démocratie mooy yaatal mooy vision mooy euh, dal mooy tolérance loolu yëpp indi na ko fi seet leen fiñ fiñ door suñ tribune bi

social là, avant ma khalifa, bon borom vision là, avant ma khalifa, que bëgg Sénégal avant ma Khalifa khalifa limdef bëgg réew mi avancé lim def ci lim def ci gis nañ ko ñaari nit ñoo daje ci moom kenn ki doom la taalibe la kenn ki xarit la doom la seen gannaaw takk suuf mu faxasal leen seen gannaaw ba solo leen mbubu jërëjëf ñes loolu lañ doon séntu ci yow gannaaw loolu maa ngi nuyu suñu imaam un gentleman. Un généreux. devant am préférence préférence euh, euh, ni nga dafa am gis-gis. clairvoyance. dafa yaru dafa defar dafa Devant ku ñeme njaboot la di ko ñaanal yàlla yàlla gudd gudd fan di ko ñaanal yàlla ba ba beneen jumaa taxaw taxawa ñu yokk jumaa ji mu jiite ñu ci ay ati ati ati at bi jaay Seydina Muhammad di gërëm nag sama najaay yi ci des di yëkkati seen taxawaay di leen di fagnal sama cofeel ci ñom à travers ñom nak ma ngi nuyu khalifa Sénégal yépp yépp yépp yépp mbolé sen à travers ñom nak ma ngi nuyu sama xarit le président de la république Macky Sall diko wax ne di wax ne politiquement dama ko cax mu jëli cax bi du cuune maa ngi koy gërëm ci vision boobu mu am di ko wax ne da koy defaral un intellectuel bu mel ni Pape Demba nit koo xamante ne ku nangu liggéey ku mel ni Pape Demba ku serviable ni Pape Demba ko xamantene dafa présent comme Pape Demba yalla def ko ci sobet nga découvrir ko dénk ko ay responsabilité mu diko doxal lepp lu ci so xewon mu defal ko nga jël responsabilité bu melni région kaolak ku doon ut ben euh, commune nga jox ko fuk commune ak wallahi do ko reccu te 2024 xamante ne da ngay jall à travers ñom ñëpp nag maa ngi gërëm sama doomi najaay mustafa ñess Mouhamadul Ghali ñess ak cousinu ñim and ànd délégation bi ak di len wone ne teway teewaay neex na ma dafa melni ni président Moustapha moo toog ci suñu wet sen teway doyna ma di nuy sama mbokk yi nga xamantene ne waa Moussa Diop waa kër su limay da boy juum wa kër Cheikh absatu wa kër Mbaye Mbaye wa kër Cissé ah ak sama dom yu bax yi nga xamantene Imam imaam moo leen jur ñu tok ci sama wet ñëw di assiste jotaay bi pour sagal ma sagal sen bop sagal dekk bi ah, ma ngi len di gërem ah duma faté nak sama goro muy Baye Cissé Niass mu alhaji Mouhamad Zeynab xale bu yaru xale bu am vision xale bu am fit a teey xale bu généreux maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla di nuyu de passage sama jarbaat Cheikh maa ngi lay nuyu xale bu dynamique nga xale bu baax nga xale bu généreux nga su ma tuddee kër imaam te tudduma sama xarit sama mbokk sama doomi ndey Cheikh Diosong mi nga xamante ne yàlla dafa def mu bëgg Pape Demba Pape Demba bëgg ko ca suba ba léegi mi ngi may wax ne nañ jiixalal affaire bi ndax Pape Demba fekkee si ko ma ne ko Pape Demba dafa yéex a déparé Dakar te nit ñi du ma bëgguma leen a fee téye dama leen a bëgg a bàyyi ñu dem su ma dee demee sama discours looloo tax waaye su amee su ko yàlla defalee tawfiq dana fekkee fee bi a ah, de passage gis naa délégation Abdoulaye Xuma gis naa ñi ko jiite samay mbokk lañ samay doom lañ maa ngi koy gërëm de passage di gërëm le président Baye Ciss téléphoné na ma léegi ne ma damaa yëg naa mais maa ngi toll ci julleekaay bi ma ne ko dama damay continuer sama discours Waktu woo ñëwee ma présenté la nit ñi nga wax ak di nuy nak di nuy sama jigen ñu baax ñii ma di ci macam, Mariama cham mu bàyyi ko ba njaafat ñu dagg seeni soxla seeni liggéey Eh, wanne ma bayi ma mukk mukk mukk ngay wet ci sa tertu bi di wet ci sa meeting bi dina ñew dina indi wa njafat di wax ne wa bawu ak eh, dekk bi nga xamé mom la ma jëm indi lon nu tuddoti wa keur biran wa keur biran wa Aynu Maan. waa Aynu Demba wax na ma ci téléphone. Bim mu déparé am kenn ci yéen ñu wax ak ñom néna jappalé né sen courant bi sér assuré dina dina ko def li dess nak moy gërëmaate aussi sama jigen Ndeye sék ni ku bax la yag nañ ma ak mom dama ko fekk Dakar tak fa jabar may ko ñëkke bi ma ko mayee njëkkee samay mbokk ak samay xarit ne lu tax day Seck mi ngi da ko may njëkk may leen Ndeye Seck sama xarit la sama jigéen la te Ndeye Seck mahabba bi nekk ci moom ci baay ak ci waa këram ñi yéen ñi nekk fi yëpp boo leen gën ñi mere ma di ma defal ay pexe waaye taxul Ndeye Seck moom maa ngi moom ba minute bi may waxe du tàggu du tàggoog ñun bi mu ñëwee daf ne ma du ma la bàyyi nga wéet képp nit koo xamante ne ci saalum nga bët bokk wala nga aju ci Medina danaa dem ci yow mu mu mu teewe si alhamdulilah rabbil alamina gis nañ sa liggéey di gërëm samay samay jarbaat ki ci jiitu moy Zahra Niass di doomi sama sœur Aïda Diallo li tax ma njëkkoon tudd Zeynabu nag du dara mooy na Zahra yàlla dafa def maam ci moom cofeel bima koy tuddé dom boba xalé bu tuuti dafa taré alcorane sama sama jabar am dom bu jigen ma tuddé koko ko nit ñi wax nak yi dafa dom xana may leen dédé dafu ma bëgg lu baax far xalé bobu taré alcorane mom ci bopam ba nak lima doon sapp ci lool yalla may na ma ngi nak nuyu sama sœur Zeynabou di wax né man magam laa def na ma mag malgré que ne yaay la ci man parce que képp koo xamante ne soxna Cheikh Ibrahima Niass nga sama yaay nga parce que ñun ci zahir ci baatin baay mooy suñu baay ban na ku doon soxnaam suñ la magee itam su yaay nga di ko wax ne kontaan naa ci teew bi teew di ko wax ne yëf yi fii di ko wax ne yëf yi fii la na agsi ñu ne président Baye Cissé agsi na li may wax nag may wax nag mooy ci affaire ak ubbi mooy ne président Macky sal

كن بريزان بايسيس بدو السلام عليكم ورحمة الله ma bëggoon nuyu balaa may nuyu kenn sama sëriñ Cheikh al Islam Baye nga xam ne lépp moom la ku fi nekk tey rek ku fi taxaw tey rek moom la teg ci nag sama bunt sama sëriñ Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Cissé imam akbar di nuyu xalif bi di nuyu waa Medina Baye di nuyu waa Kaolack di nuyu waa Sénégal di ballu nag sama mag Cheikh Ibrahim ndax waroon naa teel a ñëw waaye ma ne dinaa def tuu pour fekkee ndaxte yow li ngay xeex dafa noble li ngay taxaw dafa noble li ngay defant dafa noble yow li ngay défendre mooy Medina baay li ngay défendre mooy Baye Niass sama baay ak sa baay daan ànd su ma fi taxawee tey warul jaaxal ken wax naa la nela la xëy na li ma xam ci sa baay yow xamoo ko ndax maa daan ànd ak sama baay su ñëwee àjjuma ñu ñëw seen kër ñuy toog ak sa baay ñuy waxtaan kon nag sama taxawaay fii warul bett kenn donc ma ñëw pour jàpp ci jàppale la ci li sa cause yi ngay défendre ma jàppale la pour nga ñuy yëkkati Medina Baye ma jàppale la pour Baye Niass mi nga ne dafa tabaxoon Medina Baye ba mu jëkk ba kawe Medina gën a kawe ñun taalibe yi loolu mooy suñu xeex ñun dara taxu ñoo jóg utuñu poste ministre utuñu poste maire utuñu poste dara suñu ministre suñu président mooy Baye Niass kon nag lépp luñ ñu oo ci Médina dañuy taxaw lépp luñ ñu oo ci Baye Niass dinañ summee ko xeex waaye li ma lay xamal mooy lii tàmbali la li ci kanam rawalu bët ca kanam ca kaw Médina ca kanam ca kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf suma rak Baye Ciss ñëpp xam nañ bëgg gi nga bëgg Kaolack ñëpp xam nañ ne investissement yi nga def ñëpp xam nañ sa bëgg gi nga bëgg Baye Niass ak ak waa këram ñëpp xam nañ ne aussi li nga def fii ci me Baye ah ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ne dalal jàmm wax nañ ma ne meeru Gandiaye agsi na moom itam dafa bëgg na fekkee yëf yi bon ñu ngi koy xaar man li may wax rek mooy ne le président Macky Sall gannaaw bu mu defee action bii mu def ñun ñu ngi ci derrière Pape euh, euh, euh, Pape Pape Mademba bi tey ubbi suñ loxo gëm ne ngañaay pour président Macky Sall am ko foog ñu tàllal suñu loxo ubbi suñuy dënn ubbi suñuy xol ba nag ubbi nañ suñuy dënn ubbi nañ suñuy xol pour que le président Macky Sall am ngañaay fi ci Kaolack au jour nuit de 23 juin inshallah allah yàlla ñu ko fekkee ak jàmm. di wax nak né yeen jeunesse bi yoon yi lay wax li bay ci su wax légui yeen la concerné mag ñi ay mag lañ. yéen yéen a war jël flambeau bi da ngeen sànq Baye Niass li mu wax da ngeen a war a takku ba ngeen xam ne réew mii seen réew la dëkk bi seen dëkk su ngeen ko defarul kenn du ko defar.